GS Production. man ne léegi lañ fi jógee mais mère woowaat ma téléphone ni ma ñëwal plus rapidement mu ci laa la mu contacté nee nañu ànd. man kay man aussi tamit loolu dafa ma jaaxal ah. Ah, mais xëy na boo jaaxlee tamit. ah waaw mi ngi nii. vous êtes là. oui monsieur le maire. Sa Thiès. naka moom ça alors waaw mais tey moom da nga nekk tey moom en forme waaw mais noonu la xam nga dama ko tàmmu. parce mm. que boo xoolee euh, d'après les voyages que j'ai fait euh, bu ma fàttalikoo euh, bi ñuy nekk États-Unis donc da nga daan gis damay wan tubaab yi ne leen man je suis un homme de prestige. depuis ma nekk xale. voilà donc li tax ma woolu leen. Mm-hmm. mooy que nii dama bëgg ngeen gunge ma ci benn manifestation. manifestation waaw manifestation bu ma amal solo parce que dama ko fàtte woon d'ailleurs mm-hmm. euh, te surtout yow Sa Thiès euh, comme on on on l'avait dit euh, de ci commencement bi uh-huh. bi ma koy indil mu présenté wu woon wax ma ne ma moom lu mu bëggul mu am Thiès du am donc ça ça fait l'occasion que ni voilà mm-hmm. moom mën na dem foofu ànd ak yow ngeen yëkkati ma fa sama daraja parce que dama bëgg ñu tudd ma fa ba ma sentir ne tudd nañ ma d'ailleurs dinaa leen jox cent mille francs laa lay jox soo demee joxal ma ko micro central bi nga annonceel ma ko ni le maire Samba Seydi est venu bu ko defee bëgguma mu wax fa tour keneen parce que ñi fay daje dañu bari man kese la fay wax sama tur su boobaa nag ah ah bien sûr ma wane man maay kan te dinaa la accordé loo xam ne bu boobaa dama ne yow kese fës ndax xool. no no non attends yéen bu leen jéem a fës ci dara yéen ay dunguru ngeen. non yow laa wax. man maay maye. yow yaay fës. voilà mais dama lay xàllal laa sa ale maanaam sa dugg si. Mhm. dina am alerte boo xam ne. merci dinañ kii ñëw kii ko mu doon. merci beaucoup ba ñoom dinañ fàtte sax ñoom ñu lu leen fi indi woon. très bien. très bien Sa Thiès. eh monsieur le maire. du dégg. gis nga yow dafa mel nag mi wax danga ma xamul wala danga ma fàtte parce que durant campagne bi ñu def lépp xam nga ne man ak Sa Thiès mi rek fu ñu taxaw c'est pas la personne nga jox sa argument ndax li nga bëgg rek ci mooy nekk. gis nga yow mii soo bëggoon Kaaba ga ma dem jëli ko indil la ko. ma aj benn yoon. jeex na. compte. mais je encore fier de vous kontaan naa te xool bala ngeen a xam ne kontaan naa non li ci kanam rawuli bët di ngeen xam ne kontaan naa te et puis dunguru yu mat lu ngeen doon ngeen te et di ngeen xam ne man ngeen ko sekkal dinaa la xamal ne la mat naa ko gis nga suñu àggee ca manifestation boobu ngay wax xaw ma de jënañ la tudd par A ou B te sa daraja la ñuy teg ci kaw. keneen kuñ fa tudd kudul yow. loolu la suba ma tas ndey manifestation bi. jóg leen ngeen dem léegi ngeen dem. solo dinaa jaar ku ci nekk sa kër jël la ak suma oto. maa ngi te musicien bi ci boppam. Mhm. dinaa ne ko morceau boo def adressé ko à monsieur Samba Seydi. Samba Seydi. voilà. <laughs> merci Sathiès. merci mon adjoint. allez voilà merci beaucoup. dañuy sonal nit ñi quoi. oh là salaam. monsieur le maire. ça va na def. ça va bien. ça va alhamdulilah. alhamdulilah. def mbokki fan. Euh, fii laa dëkk Grand Thiès. Grand Thiès ok. Grand Thiès laa ah, dëkk. alhamdulilah. waaw man de monsieur le maire daa am problème boo xamante ne daf ma fee indi woon bu ma xaw a jaaxal sax tiis ma tamit lool muy affaire kër damaa am sama kër man nag jotumaa teelumaa xam ndax sama doom a xool gis ne carrément ni kër gi dafa am problème ba tax na boob ba léegi nelawatuma guddi nelawatuma bëccëg su ma lekkee sax dalatul ci man moo tax ma ne woon na ñu ni na ma ñu xelal ma tamit ne ma demal ci monsieur le maire boo moom boo ko gisee bu soobee sa aajo dina faju ba tax na woon ma def la tout nag pour gisanteeg yow wax dëgg neex yàlla sa jabar ji baax lool bi ma ñëwee tëjul ma benn buntu tëjul ma buntu yépp ne ma mën ngaa agsi ma ñëw nag doon la woon sama kayit yi nga xamante ne nii dafa am problème ba xam ndax loo ma ci mën a dimbalee te yàlla rek tax ma jël ko ndax néew di doole laa te sëñ bi lu yàlla xam doy na dooleem demeewul noonu loxoom jotul gannaaw te damaa yor ay xale yoo xamante ne ñu lenn lu dul lii fii rek la ñu yaakaar ma bëggoon tamit nga dimbali ma te yàlla rek tax boo mu loo mu ci mën a jàppale rek nga jàppale ma ci lii nga xamante ne ci laa yaakaar muy samay kayitu terrain. ok bon bon amul problème gis naa erreur bi ci nekk ba toute façon euh, dinaa la jàppale euh, su paree euh, madam dina la contacter da koy bàyyi ak sa numéro après dina la woo nga ñëw jël si ko incha allah voilà c'est ça ok voilà jëlal numéro am après ñëw ñu jël si ko ok la. defal nday Grand Thiès. waaw ah, nday nday la. waaw nday maa ne Grand Thiès. d'accord nday maa ne ok. ok. dinañ la woo allah. incha allah bu yàlla. voilà kon ok merci beaucoup. dinañ la woo. merci beaucoup. monsieur le maire jërëjëf. yemal fii. merci beaucoup dinañ la woo. allah

fan la situé woo lii terrain bi dafa placé ah, la nekk ah, ci entrée ci biir ville bi la eh, euh, euh, dam boobu nga daje léegi laa moom moo ko indi voilà c'est ça euh, terrain bi wut ci client le plus rapidement possible. loo ko jaayee baax na on le vend nañ ko jaay. dama koy jaay dama koy jaay. waaw loolu de baax na si sax. ah oui. comme kii jaar na pare monsieur le maire parce que am na ko woon wut loo benn terrain mooy euh, sama copain bi dëkk fii. jox ko ko man je vends tout. maa ko koy jaay. waaw wuyu ma xanaa boo ko jaayee li nga si jox mooy boo ko teg sama yoon Dubaay yooyu de am na yeneen problème yu ma war a régler. je t'ai dit que ni soodaloo mu ngi lay xaar waxuma la dem Dubaay mais mu ngi lay xaar Amérique da ngay dellu vacances. kon euh, monsieur loolu. maa ñëw dem xanaa eh, après on en parlera. voilà voilà mon merci beaucoup ah. nga dóor ko nag nu mu gën a gaawee parce que man j'ai pas le temps à perdre ah c'est euh, je pense que ni après loolu dinañ ci waxtaan ah. Euh, balaa ngaa dem vacances ci soodaloo en Amérique da ngay njëkk a dem Dubaï jëndi bagage après boo ñëwaatee ma yóbbu la nga dem vacances mais li ma ci naqari mooy di nga ma wéetal parce que man rek maa fi nekk. loolu moom dëgg la mais xam nga garaaw du yàgg ma ñëw mais bala maa dem tamit damaa bëgg a changer sama garde-robe samay bijoux yu baax parce que foofu du ma fa dem di cuune de. ok. ok ça me va maa ngi la fay fekk léegi parce que tey damaa kontaan te ah. am lu war ci man maa ngi la fay fekk léegi léegi maa ngi ci say tànk ok à tout à l'heure oh, voilà lii mooy àdduna nit ki boo nekkee un homme de prestige da ñeme ay engagement euh, ba pare rax ci dolli xaalis 30 euh, million dugg na leneen ak leneen dina dugg Thiès yëpp laay jaay ndeyam voilà Thiès yëpp laay jaay Je m'en fous. GS